ci cérémonie officielle bu magal bu daaru xudoos bi nga xamante ni ki ko njëkk a taxawal mooy ki njëkk nekk xalif général bu murid yi di serigne mohamadou mustapha mbake njobootu murid ñi ñépp doon ci fataleku bés bi cheikhul xaadim wuy jee boromam serigne mustapha njaate mbake moo yor kaddu serigne ahmadou moktar Mbake nekk xalif ci njobootu serigne mohamadou mustapha mbake nim maa doon ci tam gënal ko lépp te mënu ci woon a bokk ci lim gaayam doon moo ñu guddi googu bi mu fi ñëwee France te mooy mbégteem ci ñëw ci leen wàcc ci ab liggéey bu ma liggéeyee Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak borom war jot ci liñ ko diwoon mu ñëw fii ci Touba sëñ Mor Moussa wax ne bis boobu bis guddi googu mbégteem Serigne Touba naqaru murid ya waaye mbégteem Serigne Touba. yeneen këru diine yi béy nañ seen waar ba mu mat a sëkk ci magalu daaru xuddoos bile teewaayu Serigne firndeel na ko saa su nekk dafay dikk ci diggante yu ratax yi nga xamante ni am na ci diggante murid yi ak tijaan yi tarixa yi ay waar lañ te Sëriñ Tuubaa borom tool la te borom xamee benn ku ko nekkal ci waar moo tax ku ko teqale dendale ak borom tarixa xamoo ko te joxoo ko wàll loolu moom la sëñ Mustafaa doon doxal doxalul sëñ Moodu Mustafaa daraay tarixa bi ca te loolu ngeen def tey jëwriñ bii di Mansour Sy jiite woon délégation bu gouvernement bi dafa doon sàkku ay ñaan jëmale ko ci ñetti projet yi nga xamante ni moom moo gën a soxal président Macky te mu taxawal ko ci dëkk bu sell bi di tuubaal lii nga xam ne président mi koy def jëmale ko ci kër gi te boole ko ak yu bëri yoo xam ne dina gën a mën a yombalal dund bi dina mën a fexe ba ko feebar mën a faju dina gën a mën a indi lu bëri fi réew mi loo xam ne jafe-jafe yi dina wàññeeku président de la République nee na bu ñu ñëwee xam nañ ne place ñaan la nga ñaanal ko ñaanal réew mi lépp loo xam ne sumb na ko ci jëmale ko ci yooyu yàlla may ko mu yeggale ko ci jàmm ak salaam ci njeexantalu cérémonie officielle bu magal bu daaru xudóos sëriñ Moustapha Ndiaté Mbacke ci turu sëriñ moktar Mokhtar dire jëfal na jullit ñi ñëpp waaye itam fësal na mbégteem ci ni nga xamante ni rekk noonu lañu amalee xew-xewu diine bu mag bile